al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam auzu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimih wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki bokki al ibada wal xidma ngi fas yéene dellu si ci seen jotaayu tafsir di tirim déggiinu alquran ci sunu juróomeelu bind di rekk ci tàmbalib saaru baqara muy saaru nakwa ni ñu ko xamale woon ci saar yu muy saar wu gudd di saar wu làmboo ay àtte ak i nettali ak i ngëneel ak ay jago yu ama am solo saar wi mi ngi ubbee ay xaraf alif laam miim mu bari lool nag ay wuute ci ni ñu ko firee wala ni ñu jàppee araf yooyu am na ci ñu wax ne bu ñu delloo ci téere boobu ñuy wax jaamiul bayaan an ta'wili ayil qur'an te mooy at-Tabari tafsiru tabari muy abu muhammad la abu jaafar muhammad ibnu jarir ibnu yazid ibnu kathir tabari dëkkoon ca amul ca tabrestan ci atum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ca la gane woon àddina doon koo xam ne way juróom mënoon na boppam lool waaye it fonkoon xam-xam mu yitteeloon ko mu nargan ko ci mu jàng alxuraan teel ko mokkal lool ci lu yees wala ci fukki atam ak xadis ak xam-xami làkku arab te booba néew na lu bari ñaar fukki at jóge fa ñëw Bagdad nga xam ne booba Bagdad mooy capitalu xam-xam di capitalu àddina mënoon nañ koo wax daje fa ak waroom xam-xam ya ca jamonoy Ahmad ibnu Hanbal fekkante nañ ci jamono ba mu amoon yéene lool dem jàng ci moom waaye ba muy waaj ak ba muy yegg Bagdaad fekk na Ahmad ibnu Hanbal radiallahu anhum nekkatul ci jamono waaye daal jël na fa ay xam-xam lii di pirim alquran bokk na ci waroom xam-xam yi ci gën a ràññiku bokk na ci it waram xam-xam yi ci jiitu ndax bi muy feeñ ci jamono ak di dund di jàng ak di taalif booba taabi'oon yaag nañu toftalee taabi'u ba ca ñamu jamononteel yàggagutoon lool mu am ñu wax ne baat yi kat waat yii di alif laam miim ay waat la yoo xam ne yàlla moo koy ubbee ay saaram ci alquran mu am ñu wax ne kon ci gàttal rek yàlla moo xam lamu mu ca namm am na ñeneen ñu wax ne aw la wu ñeel saaru yi di saaru baqara muy nag wa mu amaatit ñu wax ne waat yooyu kat ismullahil azam la tur yàlla wi gën a màgg am nañu wax ne waat yooyu ngiñ la loo xam ne sunu boroom moo ko giñe boole ko ci turam yi mu am ñu wax ne ay xaraf la yu jokkaloo wut la yu ñu dog muy làmboo ay tur ak ay jëf yoo xam ne sunu boroom rekk xam la mu ca namm ak ñamu ko xamal mu am ñoo xam ne dañ koo jàppe rek ay xaraf yu ñu le noonu waaye loola moom faaw am na ak jublu ni nga xame ne ci kalaam muy wax di jëm fenn ab noselay doon boo xam ne wala ak toggoo wala ak toggaloo boo xam ne faaw day am luñ ci jublu kon waat yi tamit su fekkee ne kenn doguwut ci xam la suñu boroom jublu it fawwu am na ak jublu mu am ñu wax ne araf wu ci nekk rek ay maana ak i solo yu bari la làmboo kon ذلك الكتاب bile téere alkitaabu bu ñu ko waxee rek ci biir alxuraan la muy tekki mooy téere ba téere boobu mooy ban mooy alxuraan ba ci baat boobu sax di alxuraan alxuraan baat la bu tukkee ci baatub qiraa muy jàng wala aw jàng wala am njàng waaye màgg gu mu màgg ak tëdd gu mu tedd di waxi sunu boroom moo waral buñ ne quraan aw la sax woo xam ne tur wu jagoo la téere bi waaye it naka noonu ci biir alquran saa bu ñu waxee ne zalika alkitab mooy téere bile téere yi bari nañ lool waaye buñ ci jublu kon mooy alquranul karim kon téere baa ngi nii di alquranul karim sunu boroom wàcce ko ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam sayiduna muhammad laa rayba fiihi mooy amul sikki sàkka ci biir téere yi ni ko Cheikhna Ahmad al Xadim firee mooy mahwu shakki fi qawlihi taala ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه البقرة laaya ju jëkk li mu ci jublu wala li muy tekki amul sikki sàkka wala lu ñuy nattable ci li ko dale ci alifuk alif laam miim ba ca siin sa mujj ci minal jinnati wannaasi ndax mboolem téere yi wàcc bawoo asamaam jiitu woon fuuf tawret tawret ñëw linjiil zabuur téere yooyu yépp dañoo maase dugg dëxëñu ci biir alxuraan hudan lil muttaqin hudan wala al huda moo di ak njub ak gindiku ku dugg cib dëkk doon fagan gan wala miinagu fa wala sax xamu ko am fu mu fa bëgga dem daje ak nit laaj ko ne ko barab sàngam di laa doon sàkku teg googee mu koy teg ca yoon wa loole mooy li ak jub di tekki dafay dikk ba tey ci lu tàlli rek nga xam ne amut benn dëng-dëng wala dara ci ndëngte nekku ca ndax dañuy wax ne dafa jub xocc bant bi ñuy defare ak fet wala ak fit wala ak tungaar bu ñu dooxalee bant bi takk ak buum ca yaari cati bant ba bant ba doox buum googu nga xam ne mooy nekk ci diggante ñaari cati bant bi day tàlli jub moo tax ñu koy dàkkentele ci xocc mooy buum gi xala mooy bant bi mooy waral bu ñuy wax nit ku dëng dañuy wax ne moo gën a dëng xala waaye dafa jub xocc ni buum googuy nekk ci diggante ñaari cati bant bi kon ak njub mooy loo xam ne li muy tekki fii mooy saafara li ne ci dënn yi mooy doon it loo xam ne dafay tànqal di sonal di lëjal di lakkal ñi nga xam ne bëgguñoo dégg dëgg mooy layu yàlla wi gën a matale te gën a jot ci kaw suuf moom jub googu mu teg mu ne wet mu diw yoon ku képp ku ca jaar am la mu bëgg fii am ko it fañu jëm waaye njub googu nag ana kan moo ko mën a am man caa yegg lil muttaqiin ragal yàlla ragal yàlla nag mooy lan mooy def ay ndigalam waaye di moytu ay tereem ca la mu farataal lépp ñu toppe ko di ko jooxe di ko def def googu ñu koy def bañ a wàcc yoon wa loola mooy tax ñu tudde leen ñu ragal yàlla nga xam ne lépp lañuy jël waaye duñu ne dañ cay juqati dara walla dañ cay tànn waaye lépp rek la ñuy jéem di ca taxaw kemtulaayul kàttan jébbal sa bopp yàlla lu muy tere nga di ko daw waaye lu mu digle it nga di ko def xëy na li mu digle lépp mënee su koo def wala mënee su koo defandoo waaye loola moom dala caa wax rek nga defe ko sa kemtulaayil kàttan foo ca yam mu gàttandu la wala mu dab la yóbbu la ba nga àgg alladina yuminuuna bi ñi nga xam ne dañoo gém ci kumpa te cosaanub kumpa mooy lépp loo xam ne dafa fàddu nekkut wala nekkandoowut ak nit ki fi benn barab mooy lu fàddu dañuy wax ne diw kët dafa fàddu wala dafa tukki wala nekku fi eh, te baatub nekku fi sax wala nekkut ci barab sàngam waaye ñàkk nekk ca barab ba terewul ak amam kon gëm giñ koy gëm wala boog ngëm giñ koy gëm dafay dëggal ne liikat lu am la doonte la sax gisuñu ko Sëriñ Tuubaa di ñu ko firil di wax ne nit kat mi ngi nii te mooy alladina yuminuuna bil xaybi ñi nga xam ne dañuy gëm kumpa mu ne nit a ngi nii doonoon ku taxaw fenn àjjana di lu am waaye dëgg dëgg nag ngëm yàlla moo di nit ki na gëm ne subhanahu wa lu nekk la waaye amul fu mu tàmbalee amul it fu mu yem moo sàkk àjjana rëddal ko aw yoon yoon woowu jëm àjjana mooy lislaam ndax inna diina inda allahi l islaam al imran fukk ak juróom ñenent diine day ju nuy tudde dëgg-dëggi diine di ko moomale yàlla mooy lislaam bu ñu bëggee am la ca wér alladina yuminuuna bilxaybi albaqara ithnain mu ne ñooy ña nga xam ne dañoo seeru ajjana te mooy mel ni dañ leen koo tegal ci ab écran ñu di ko seetaan ca melokaan ya fa nekk ana naka lañ koy gisee mooy ci leeri seen bëti xol gëti xol ci biir ndigal yi leen sunu boroom di digal ñu mujj doon ñu wóolu mu doy leen sëkk ci ne lii amut senn sikk wala luñ ciy nattable wala luñ ci jiixi jaaxa wala luñ ci am ñaari xel wala di déng-déngi wa yuqimuuna alsalaata albaqara ba tey di taxawal julli wala ñuy taxawal julli mu ne ñooña de ñooy ña nga xam ne dañoo jëm ca dëkk ba te mooy àjjana awe ko ci tànki jaar ci yoonu sharia di taxawal julli julli juróom waaye duñu ca yam dañuy rax di dolli ca biir ay nawaafil mu di ay coobarewu yoo xam ne xëy na kenn tegu leen ko waaye sopp gu ñu sopp sunu boroom ak neex gu julli di neex ci ñoom tax na kat doyeluñu ñu jóg di ca dolli ay julli ci ak coobarewu ndax bu ñu waxee rax sax rax moom walla kooj dadul jekk du jaadu ndax julli juróom ni ko sunu woroom tëgge doy na sëkk mat na waaye dolli ku aw yiw lay doon ak bëgg lu baax nit ki sunu boroom moo koy baaxe di ko jagale yu bari ci wërsëg am koom ak alal ak nag sañ-sañ ak man-man ak yana deme loolu coobare suñu boroom la di ay la mu di ko jox ku ko neex waaye bëgg lu baax nag nit ki sañ naa wax ne du ma nangu kenn gën maa bëgg lu baax ci ak sellal gu muy sellal ak taxawaay bu muy taxaw di jéem a gën a baax baaxlu fu mu toll ngir mën a àgg ca dëgg-dëggi la taxoon sunu boroom di ko digal mu julli di nu digal ñuy génne azaka di nu digal nuy woor di nu digal nu war a dem aji màkka wa mimma razaqnahum yunfiquun ba tey ci ni ko cheikh na ahmad al xadim di firé mu ne ñooña de ñooy ñiy jël seeni alal di ko joxe ginnaaw bu ñu amee lu doy nag loo xam ne la di warteef yu jiitu yu jëkk ci ñoom def nañ ko ñooña ñoo ëpp te gën a kawe ay martaba ak wàccuwaay ca sunu boroom looloo tax mu jukki leen teg leen ca kaw ngir kawe gu jëf ja ñuy jëf kawe ak baax gu jëf ja ñuy jëf baax ndax nit ku am ngëm-ngëm te amut lu mu joxe du yamag ki nga xam ne dafay joxe ba noppi boole kooku ngëm ki nga xam ne dafay julli ba noppi boolewu kook di joxe bu boobaa kay joxe dafay ñëw tiim leen ñoom ñëpp ndax ngëm gi am na ko di ko suuxat julli gi am na ko ma ngi koy def di ko sellal ba noppi nag amaat li wolof di wax aw mbakkar feggu te moo di joxe te yàlla rekk tax ndax nee bari na wala bariwaana góor yàlla gu amug wóolu ci attey sunu boroom yi waaye yàlla dénku ko lu muy mën a joxe di ca mën a fajal keneen yitteem ci am koom ki nga xam ne nag dafa am alal mu doy ko sëkk wala daal ëpp na la nga xam ne moom moo di soxlaam waaye nag man koy sàmm ndax alal du benn bis wala benn yoon lañ koy soxla dañ koy soxla ak soxlawaat xëy na sax di liggéey di ca dolli ànd ak barkeb sunu boroom di ca wàcc ngir génne ga muy génne ya ca war ci azaka ak ay sarax ak yana deme waaye bu boobaa it infaq muy joxe ci yoon yàlla dafa di loo xam ne day yoon wu gaaw ci yeggale nit ci sunu boroom wala ca la muy bëgg wa man yuuqa suxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun ku yàlla dénk alal te defu ko ca biiru xolam xanaa da koo yamale ca ay yoxoom waaye bu gisee ku soxla ku ittewoo kuy laaj walla sax yëg na ne kii kat laajut waaye am na ci yitte mu fajal ko loola ku def loola kat wala ku bokk ca ñooña ñooy ña texe dëgg-dëgg kon nag nu yamadi fii bindub juróomeel bi ba beneen yoon incha allah di ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq lu ci jub ndimbalul suñu borom la waaye lépp lu ci dëng noo ngi koy jégglu te di ñaan bu baax mbokk yi ñu di ko topp te di ko jubbanti ak a joyanti képp ku ci dégg wala nga gis ci lu mat a joyanti rek ñu ngi lay yalawaan di la saraxu nga dimbali ñu ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yow miy topp sunu waxtaan yi jamono ju nekk da ngay bës kolos bi ngir abonné ci al ibadatu wal xidma ngir ngay am nag mboolem waxtaan wi jóge ci al ibadatu wal xidma dangay ngay bës cloche bi ñu bind abone mboolem lu fi jóge rek da ngeen ci jóg